asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaar cher siyaare mboolem kuy topp Fall 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam ne leen ko defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal na leen siyaar nañ leen ñu dellu ba France rek ci eh, avocat Ousmane Sonko bi nga xam ne dafa ñëwoon fii ñu dëppaat ko tey nag mu war a jàkkaarloog presse France 22h30 xam naa ne nag ñu bari ñu ngi koy xaar ndax Sénégal yi maa ngi gis ñuy posté rek. Eh, boo duge ci réseaux sociaux yi moom da gis ñuy posté rek waaw avocat Ousmane Sonko bii nag nga xam ni wax dëgg yàlla eh, xam naa ni li tax muy def conférence de presse moom moo xam xam naa gars yaa ngi koy xaar ndax boo xoolee tey eh, internet da gis foo xool rek da ngay gis ne ñu ngi koy posté voilà léegi nag suñu demee ba mën a xam ne maanaam léegi ñi nekk bitim réew bu nu ñëwee fii nii ngir am ku ñu layal ak di ko jàppale kooku tem dem ba France ga mu nekk dafa am bës ñëw Sénégal am fi bës ci diir bu ndaw kon loolu day wane ne rek euh, sénégalais yi daal euh, dañoo nekk ñoo xam ne nii euh, ñu mat a bàyyi xel lañ waaw dañoo nekk ñoo xam ne ñu mat a bàyyi xel lañ parce que lii dox ci àdduna bi xam nañ ko léegi te boo xoolee internet bi wala maanaam ci réseau yi day gis ni maanaam lépp lu xew rek balay ngoon daanaka mën naa ne ñëpp dañ koy xam. parce que léegi ñëpp yor nañ téléphone ci poos voilà lan moo leen xamal ni maanaam tey avocat bi ñëw na fi ba wàcc ci aéroport bi ba delloowaat ko réewam ba tey ñu mën a xam ne maanaam vingt deux heures trente ci lay defee émission fële ci France jàkkaarloog presse France loolu lan moo leen ko xamal kan loolu day wane ne léegi àdduna bi benn porte la réew lu mu sori sori rek lu fa xew rek mën na egg ci réew yi gën a sori voilà kon nag yaakaar naa ni eh, loolu nañ ko nit ñi bàyyi xel bu baax a baax ndax nit ñi léegi dañoo yor téléphone dañoo yor ay téléphone te daanaka léegi nit ñi ay téléphone rek la yor aki i tablette ak yooyu amatuñ temps sax ci télé yeeg yooyu noonu parce que seen dem beeg seen dikki beeg yooyu noonu xam nga toogatun maanaam comme bu njëkk nga xam da nga doon toog waaw papa toog doom toog xëy na nag mi nga am ba léegi waaye Euh, ngeen toog di seetaan loo xam nga télé loolu daanaka léegi dafa raar léegi kenn ku nekk daal da yor sa téléphone ci sa euh, poos maanaam da ngaa yor sa télé sa poos euh, nga xam ne tey boo duggee ci kër gi da ngay gis kenn ku nekk yaa ngi sëgg sa télé yaa ngi sëgg sa télé voilà ndax téléphone yi la mooy téléphone télé télé ci poos kon loolu nekk na loo xam ne ni nit ñi nañ koy bàyyi xel bu baax a baax kon ñoom néew na luy xew ci àdduna bi te duñ ko xam voilà parce que àdduna bi moo toll foofu noonu te day gën a euh, avancer te dafay gën a euh, euh, yokk jëm ci kanam voilà voilà kon xam naa ne daal lu ci mën a am rek nit ñaa ngi koy bàyyi xel di ko may ay gët di ko déglu ba xam lan lay wax ndax man li ma waxoon rek ci sama vidéo bi gan moom bu ñëwee li ma gis bu ñibbee loolu rek lay wax voilà moo tax chaque jour sa su nekk rek bu gan ganisee lu mu metti metti rek téye ko nga teral ko ganale ko ba bu demee du am lu mu wax loolu tamit soxla nañ ko ci euh, gan waaw comme ñoom dañ doon euh, njort ak dañ doon dégg Sénégal de la Teranga Sénégal de euh, démocratie yooyu yëpp da ci am diggante ñaari citoyen yoo xam dañoo jote kenn ku nekk wut sa avocat bi nga gën a wóolu pour renforcer ko sa say avocat loolu ñoom ñaar ñëpp ñu bàyyi leen rek kenn ku ci nekk rek xam nga ñëw ki nga war a layal nga layal ko neutre nga xam ne loolu kenn ko ci nekk rek dana mën a gis boppam bu baax a baax ci kii ko jël parce que loolu dana nekk loo xam ni nii euh, dafay gën a yëkkatiwaat bu baax a baax a baax lii di Sénégal waaw dana gën a yëkkatiwaat tamit valeur Sénégal waaye tey bu ñu demee ba wax dëgg yàlla lii am loolu day nekk loo xam ni vraiment kenn mënu koo xam daal ndax Sénégal xamewuñ ko lool te ñoom dañuy am déception même tey jii bu fekkee tey da ko daan dégg te loolu da ko doon dégg rek tey la mu daan dégg moom la dal kan day nekk loo xam ne ni vraiment te boo xoolee Euh, booba léegi daf koy ñaxtu moom voilà parce que li ko dal nee na jàppoon na du ko dal voilà kan loolu yëpp euh, nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax euh, Sénégal dañ ko bokk kenn ku ci nekk nañ la bàyyi ak ak sa yelef kenn ku nekk nañ la bàyyi tranquillement ñu bokk ànd bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo ñu liggéey ñuy waxtaan nag di sottante ay xalaat ñu bañ a xeeb kenn ñu liggéey réew mi daje moo gën daal wax dëgg yàlla ci lii ñu nekk nii ngir lan ngir gën a xool ba xam 2024 kenn ku nekk yaa ngi bëgg a renforcer waat kenn ku nekk yaa ngi bëgg a amaat poste kenn ku nekk yaa ngi jàpp ne yow yow la te fekk mbir mi demewul noonu gars yi nag euh, yóbbante nañ ma bari na ci ñoo xam ne fi mu toll nii ñu baree baree bari yoon nañ seen i carte d'identité ñu ngi xaar euh, bindu yi jot ñu dem bindu ji te nag nee na li leen daloon dootu leen dal. foofu daal laa yem ndax ñoom loolu lañ ma wax nee na li leen daloon dootu leen dal seen i carte dootu ñu ko jox kenn koo xam ne nii rek daf leen i dig dara te duñ ko def loolu moom dafa dañ cee maar dañ cee sonn voilà beneen bi ci des tamit mooy ñeneen ñi tamit nee nañ bëggutunoo gis réew moo xam ne nii dafay mel lu am par parloo man ku ma mën a jàppale keneen ku ma mën a jàppale suñu yoon nekkul ci loolu li ñuy ñor mooy ñun ñëpp rek dañu bokk ndey bokk baay ku war a am liggéey liggéey.